docteur Abdou Khadre Sanogo ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi ñuy waxtaan ak yow ngay siko psychosociologue euh, ci ay euh, phénomène yi fi jot a xew euh, jamono ji d'abord ñu doore ko ak mbas mi gis nga situation bi chaque jour ñi di acteurs yi di gën di woote di yeete gannaaw loolu gis nañ ne sénégalais yi ba tey ñoo ngi am jiixi jaaxa ci lii di vaccination bi nga foog ne lan moo waral ñàkk kóolute googu nga xam ne sénégalais yi euh, ñu ngi ko am ci autorité yi. waaw xam nga bu ñu ko bëggee lépp mu ngi tënku ci ki génne kàddu. malheureusement Sénégal dafa am lu ñu gëm. dañ lay wax ne la pour nga digal ko sànq yow da ngay def ba pare li ñu fi gis ci xel yi mooy dañ leen wax ay façon discours yu bëri wu ne. virus bi bëggul nit bëggul booloo bëggul daje. buggul dajaloo mais ñoom ñu xippi seen bët gis ni ñu leen doon wax loolu ci même période bi mu gën a taree ñoom dañu doon wote dajaloo mbir ma jeex ñu continuer di def ay tournée mbir ma jeex ñu ñëwaat même pas fan bi ñu jeexalee seen yëpp na leen virus bi ñëwaat na donc da di fagaw d'ailleurs actuellement xam nañ ñoom seen kàddu lewatul lewaay boobu yi war nañu mën a wax kenn ñu dégg wax naa ci benn télé ne ñoom suñu buggee nit ñi dégg leen nga xam ni ñi foo leen fekk ñu ngi takk seen i masque wootewuñu ndaje qui s'impose waaw léegi nag façon wax boobu yëpp di wuute tey dañ te ñun Sénégal dañoo jàpp ku sa wax wuute ñaari yoon jarul gëm mm-hmm. moo tax nit ñi gëmatuñ leen mais damay faral di wax ni xam nañ ni virus bi mi ngi ndax gis nañ mokk bu mu dal jegewaale bu mu dal mais dañ koo nanguwul. Mhm. xam nga ku mu neex nga gis jant bi ba ni jant baa ngi ne la nga ni waaye malgré a gis naa ko nanguwu ma ni gis naa mhm. loolu la a xam ko moo jafe dañ koo banaliser maanaam dañ te loolu nag affaire égoïsme la sénégalais mbir tant que bi kërëm rey yaayam rey magam wala mu rey ko danaan du dëkk te moo la gën a xam ni dëgg la foofu lañ toll tey mu mel ni histoire bi day day répété parce que bu ñu revisité euh, li jëm ci vaccin yi yàgg naa ànd ak coow waaye dafa mel ni bii euh, da ci raw lu ko waral ndax dafa am particularité ci cas bi wala dafa doon nature sénégalais bon c'est vrai que sénégalais moom euh, bala moo gëm gis bala moo gëm tag bala moo gëm sonn mais loolu du ak sénégalais même ci ngëm nit bala nit ki pour nga gëm loo procédure ak processus yi muy jaar moo yàgg dama lay fàttali rek ne la même ci diine mhm. pour yonent yi ñëw wàcce message nit ñi gëm leen jafe-jafe bu rëy rëy rëy rëy mhm. donc au la sénégalais nag nit la donc du ñoom rek particularité bi du ñoom rek mais daf ci am nag particularité sénégalais mooy ñun dañoo am problème yi boo xam ne nii ñun suñu culture may ñu ñuy déglu trop lii pajum tubaab ñu joxe maanaam ñu koy wax médecine moderne amuñu ci culture suñu jàng tout dana sa def ñu dafa bëri trop soo ñëwee di wax nit ñi ay vaccin di leen wax ay variant di leen wax mais loolu du ñëpp ñoo am niveau pour comprendre parce que ñun li ñu xam mooy ay reen ay xas ak ay xànc loolu la ñuy wax médecine traditionnelle sama biir métti na ma dem àll ba d'accord dagg ay xob wala ay ren wala ay xànc ñëw baxal pour génn mënumaa am doom ma ne damay dem ci maamani mënumaa donc ñun loolu suñu peuple africain yi il faut reconnaître que mbirum vaccin ñi ci mën a wax ak ñi ci ak ñi ko mën a dugal seen bopp seen jàng eggul foofu d'accord parce que c'est des c'est très techniques donc c'est compliqué te aussi ça concerne aussi une approche biomédicale beneen bi ci topp mooy en vérité mbir mi loo ci dégg dégg dégg dégg dégg dégg dégg dafa poser débat wu li ñuy wax géopolitique débat wu géopolitique nag mooy affaire de communication ak marketing la yow da leadership international ba gën ko mën a asseoir donc damay wax ni boobu baaxul beneen élément bi di kam affaire a euh, dégg nga ma defar de suite donc ñooñu nag kuy sëlëm sa wujju doo sax ñooñu ñoo génne li ñuy wax intox ci communication ba def ko ba nag nit ñi seen xel bi jiixi jaaxa parce que nit aussi lu xajamal xelam dafa yomb xel dafa dafa dafa dafa dafa neexal la ndëmal mais soo déggee ni nit ñi di waxee ku jël virus bi am na ku ko jël fii daanu kii xëm kii c'est normal que mu indi ay jiixi jaax donc élément intox wu absence de euh, ak affaire aussi euh, un xam ne dañuy def ay compétition sous plan géopolitique moo indi lëndëmal lëndëm lëndëm xel yi ba ñu ku nekk pour nga jug rek dem jëli ji vaccin yi daf lay xaw a diis parce que da naan après tout est-ce que du ko jël safaan ba fekk ma kon daal yow jàpp nga ne paradoxe yi ci am yëpp du dara lu dul concurrence mais ay concurrence rek la ak aussi encore une fois j'insiste ay considération géopolitique américains yi bëgg nañ li virus bi di am yëpp ñu def de telle sorte kenn du fàtte seen tour que xeex bu nekk bu mun am ci monde bi ñu jàpp ni ñoo ci jiitu chinois yi bëgg ñoo des en reste d'accord français yi aussi en voilà donc ku nekk aussi loo mën a def pour nasaxal sa virus morom yéegal sa bosu boobu da nga koy def léegi nag malheureusement absence de culture euh, un peu qui nous permet de pouvoir faire la distinction et la part amul c'est que Euh, ci africains yi soo xoolee ci sunu askan ni mu takkoo ñi ci mën a am xarañteeku euh, un peu xaajale mbir yi def ak xaj ak seen moom moo bëriwul nit ñi ay mariirandoo moo bëri ci nit ñi dañ naan dégg naa lañ lay wax dégg naa moo xew Afrique ah nee nañu waaw nee ak dégg naa boobu nag ci nga xam ne nii moom ay outil ak ay mécanisme permettre ko mu mën a déchiffrer le discours mu mun ko analyser ba xam lan moo ciy dëgg ak lan moo ci dul dëgg kooku moom danaan rek comme li bukki wax li bukki li wax mooy dëgg kon man du ma tricherie gis nañ euh, faral di ko nemmeeku ci ay examen baccalauréat bi moo ci mujj euh, du lu bees ñu yàgg koo gis waaye tey ji lan moo waral euh, wala sax nan la ñu mën a expliquer phénomène boobu. waaw phénomène bi de ni koy mën a expliquer xanaa xëy na jafewul sax de mm. maanaam. njuuj njaaj def loo war ko def mm-hmm. nëbbatu làqatu ba am li nga war a am te amoo moo fi bëri ci réew mi looloo wàcc ba ci xale yi rek nit nekk na ci bureau ba taay ñu jox ko benn poste fekk force bi moomu ko nit jiite nit ñi ba taay mais bari ci demoo njaay gis nga fi benn waaye bu ne médecin la ñu dem ba ci biir rendre compte ni loolu muy woote nekk ko waaw li nit ñi di euh, woote dafa nuroowul benn yoon ak li nga xam ne nii moom la jëfe te loolu nag bu amee ci askan li gën a ñàkk expérience ak maturité ci askan wi ñu koy wax ay ndaw pour ñu reproduire loolu maanaam pour ñu def ko di ko defati wala ñu xool ko ci mag yi day yomb il y a un de modèle aussi culturel ak socioculturel yi ñu war a am ci mbedd suñu demee fenn joxe téeméer wala truc ñu bàyyi leen ñaata nit ñooy def infraction euh, xëy na euh, waxuma ko sax sànq xëy na ci nasaraan passeport diplomatique nit ñi dañ koy mbuxum fii extrait nit ñi dañ koy mbuxum certificat de mariage nit ñi dañ koy mbuxum te loolu ay magum jëm ma koy def ñun ñëpp xam nañ ko ko mën a def mës a def wala su fekkee ni sax ñun mësuñu ko def permis nit ñi dañ koy mbuxum doo mës a dem jàngi ji nga fay ñu jox la waaw loolu nag su ko xale bi gisee il peut être tenté mu bi ci des mm. mooy malheureusement ñun dañoo jàpp ni sooy dem di jongante da ngaa war a gagné ñun amuñu culture wu euh, mettre à ñi nga xam ne nii dañuy jongante wala dañuy dànk su fekkee nii dañoo ñàkk wala ñu lajj ñu jéem a def de telle sorte que seen i jaaj ñu waajalaat leen pour ñu xam ni euh, victoire yi gën a ngand ci kaw suuf maanaam gañe yi gañe yu gën a rëy ci kaw suuf mm. munoo ko def te xamoo aussi ay lajji wala ay jafe-jafe dafa am na sax ku naan la euh, yoonu tekki mooy yoonu jafe-jafe tey ci àdduna bi ngi fiy joxoñ ku ñu ci joxoñ rek mës am bis boo xam ne amoon nga demoon nga wuti loo xam amoo mais dafa fekk aussi nga am ay ñoo xam ne ñoo la wër xamoon nañ ñi yow yaa indi xamoon nañ loolu bettuñu loolu léegi ragal bu xale yi ragal a lañ moo tax ñuy dem wuti ji moyen yëpp pour pouvoir réussir beneen bi ci des nag mooy ñàkk a wóolu sa bopp te ñàkk a wóolu sa bopp ci réew mi mm. culture la mi ngi njëkkee ci suñu jeexital ci wut téere ci takk téere ci takk ndomba ci petaaw ah ay nen tour soow looy te sax même pour nga compétir ci ndoxum naan sax dañ lay wax ne la même soo compétir ci ndoxum naan dañ lay wax ne la ku ëpp sëriñ yow yaay dàq naan da ngay am sëriñ suñu buggee def nawetaan ñu wax la même chose hmm. soo buggee sax sa sëy neex au lieu que ne la yow kat boo toppatawee sa jëkkër yow kat boo amee euh, kàddu gu lewet ci moom yow kat sa jëkkër bu xamee ni euh, wax dëgg yàlla ko ko jox cër nga ku ko déggal nga mun na laa bëgg ba jéggi di dayoo déedéet dañ naan la soo buggee sa jëkkër bëgg la da koy dem wut doot ko da nga koy wut euh, ay loo xam ni soo ko defee ci lekk bi mu gën laa bëgg <laughs> waaw mais absence de confiance boobu nag xale yi ci moom lañ nàmp bu ñu demee examen mu leer leen nii tey euh, réussir rek moo fi nekk te xam na ni amuñu moyen wu réussir. Mhm. te dañuy dem triché ji parce que gëmloowuñu xale yi ne ku nekk war ngaa mën a wóolu sa bopp ci la yàlla jox ci xam-xam ci la yàlla jox ci li nga jàng ak ci yàlla jox ci li nga mën dañ lay wax ne la na beneen lu ci yokk lu ci yokk nga ni mooy la mooy nga takk benn jaaro benn lam benn tomba benn waaw léegi culture euh, xar ba fuuxa boobu moo dem ba yóbbu ñu ci ñun ñëpp wóolootuñu suñu bopp te boo wóolul sa bopp nag da wut loo yokk ci sa yokk gi nag moo indi tey aujourd'hui euh, ngay gis yëpp ci kanamu classe il faut pas que ñun en tant que adulte ñu taxaw fële rek ne xale yi dañoo mën a tricher ba ñu bëree ngi wax ak yow tey amuñu bac hmm. te pourtant soo leen laajee ñu ne j'ai un bac plus cinq te duñ la mos a génneel seen bac mais yow daraja ci dëkk bi voilà méritocratie bi jiite ñu waaw mais que euh, méritocratie dafay tumuranke ci réew mi euh. soxna Elisabeth mun naa la waatal la réew mi ñu bëree ngi yor dara ngaan ko ko du seen mérite Sénégal lañ lay wax ni chance gën licence. waaw est-ce tamit est tamit xale yi demeewuñu noonu. waaw mais xale yi fan lañ jëlee loolu man waxuma dañ koy demee de dafa ne lañ ko jëlee. <laughs> ci askan wi dañ ko déggee ne la booy affaire bi du affaire bu jàng da ngay wut eh. téere am fit da wut téere am fit te tey mun naa la xamal ne la am na ñu jàpp mais am na ñu rëcc. waaw ah, loolu nag le modèl que l'on vend à notre société à notre à notre progéniture qui est appelée à porter les les cibles de l'avenir mais modèle boobu mooy modèle wu gëm sa bopp doylu def confiance à li nga mën ak li nga xam après advienne que pourra soo jàllee xayrun soo jàllul ñu encouragé la ne la demal defarwaat. Mhm. subaay baax mais léegi même na ma yàlla baal ci sport bi sax da ngay gis nit ñi dañuy dañuy dañuy dopewu pour mën a jël pay loolu tricherie la nit ñi jigéen ñi dangay ngay wax benn jigéen mu ñëw voilà li mu sol ci kaw ba ci suuf lii ay hanche la lii ay ween yu yu mu poose la yi ay loolu yëpp c'est de la tricherie ba ci greffage yii nañ ma baal c'est de la tricherie léegi gis koo xam ne soo ko gisee yaakaar ni karaw gaa ngi suuf mais su ko greffage yam du cee nel ngay fekk foofu nekkandel la voilà ba ci ñun ñii góor ñi dañuy ñuulal ku sa bijaaw feeñ nga ñuulal ba baax ñoo taxaw chirurgie esthétique yi ñuy def yëpp ci tricherie la donc léegi c'est un modèle que nit ñi bëggatuñu def confiance ak ni ñu mel dañoo bëgg a wane beneen melokaan boo xam ne ñu ko loolu nag moo law ba ci triche bi ngay gis. d'accord docteur nga xuus sànq ci xar fa xuufa tey ñu nit ñu dem ci euh, fànn googu ñu gis ne euh, day gën di wala dañuy faral di dégg ci ay mbir euh, mbirum xar fa xuufa ñu jël exemple kaaw Lobe moo fi mujj ñu dégg ci benn féticheur malien mu mel ni tey fétichisme bi dafa gën a bokk ak léegi suñu quotidien lan moo waral tey mu mu muy gën di bëri ñu koy gën di tudd saa su nekk. ci la ci la sangu ci la ñuy naan ci la ñuy lenkaliku bis bu nekk mais li ko war a très simple mooy bëgg nañoo am lu ñu lu bëri te duñ def effort xam nga nit ku ne la kaay nga jox ma cinq cent mille après ma defal la ko ay milliards. loolu du bëgg lu yomb. Mhm. waaw culture bëgg bu yomb boobu culture aussi euh, amaana jàpp ni sànq laa la wax léegi. Mhm. ñàkk bañ a wóolu sa bopp. ba yow jàpp nga ni lépp lu mën a xew Afrique lañ dëkk ci liñ ñu lay taalee ay xar nga foofu da cee bokk xëy na mais daf doon nekk rek pour muslu hmm. maanaam jigéenu wérul boo xam ne nii euh, pour mu bañ euh, yenn bët yu grave yi wala yenn réalité yi euh, jàpp koo ñu ne la takkal téere hmm. liir boo xam ni dafa ñëw ñu takkal ko téere loxo téere tàgg loolu ki lañ ko faj ki lañ koy bàyyi pour muslu hmm. mais léegi dañ ko bëgg a utiliser comme instrument ak moyen de guerre boo xam ni foo jëm loolu ñàkk mën na la ko may soo amul doom ñu ne la bi ne la soo ñëwee man naa la defal ba nga am doom soo mënul a mu ne la mën naa la jox visa d'accord soo mënul am examen mu ne la li ma lay jox nii soo ko génnee tel endroit tel endroit yooyu la ne kaay ma defal la léegi mais da nga may hmm. doom teewul benn waaye ne la non da ñëw man mën naa la ko jox ci àgg mën naa la jinne yi soo sàngoo nga takk say bët mën nañoo ñëw heure boobu voilà waa dina bi mooy seen yow fekk waa ji ci boppam moom moo bëgg a ñëw am lu mu sëkk ak yow waaw léegi ndof googu sénégalais yi dof nag ci mbirum xar ba fuuxa moo leen fëkk ba léegi conséquence yëpp ñu ngi ñëw ci ñun sacrifice yi joxeel sa weewu doom demal ba def ñu ay bàyyi mm. wala ñuy dagg seen i cër waaw loolu chaque jour ñi ñi dañoo dénoncé ko fi daf ci dafa am jeexital boo xam ne ci Sénégal foog naa ni wax jiñ ciy wax yëpp du ko tax a dem parce que bu nekk nga syndicat te du tey aussi xale yu jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ah, góor ñi ñëpp koo ci gis lu ko njabarkat wax ne ko def ko suba ba ngoon mën naa yeewu xaaju guddi te loolu daf ñuy exposé sax demal ci géej à deux heures du matin taxawal ci benn tali boo xam ne nii voilà célébé yoon à quatre heures du matin yooyu yëpp ay exposé yoo xam ne mm. a dafa dem ba sax xam-xam lu la sa mën-mën xaj xar ba foofa mën na la ko loolu nag suñu ngëm aussi bu woyof la parce que soo gëmee tuuti di nga war a xam ni nit day sabablu li ci des mu teg ko ci loxo boromam parce que àdduna téeméeri at yàggul te ñu ko fiy dund duñu bëri ku nekk li fii sa wërsëg rek ngay jël après nga dem sa yoon hmm. même wërsëg bi bu bu jéggee dayoo ak lu ci munti gën a di nga ko fi bàyyi léegi ki doylu nag ki ki mooy ki nga xam ne dafa doylu parce que dafa naan en en fin de compte yénn am ami sax lan la ko fi nit di doyee hmm. yow kay ñaanal suñu na am ay or te teewul buggul def effort waaw léegi nag il faut mu làqatu ci ci njibar njibar yooyu nag moo ñoom ñëpp bis bu nekk ñu am ci leçon parce que yàlla suñu borom moo ni bépp rëbb naa njibar kat parce que man sama bopp man maay maye léegi nag il faut ñu xam li ñu gëm soit dañuy gëm yàlla wala ñu gëm leneen parce que yàlla rek moo fi nekk boo xam ne nii war nañoo mën a toroxlu tàllal ko suñuy loxo mu may mm-hmm. voilà en kon parce que voilà donc donc di xooli waat seen wér gi yaramu bopp parce que ñi ko ci dese bëreetuñu ni ñuy xoolee lu leen daal ci seen yaram di solu di di di lekk di naan hmm. nañ dem ci cabinet yi xool ay spécialiste ñu delloo ci waat la parce que ñi ci seen xel rëcc foo ko takk weesu na <laughs> docteur Abdou Khadre Sanokho ñu lay jaajëfal bu baax a baax waaw maa lay gërëm Elisabeth di la sant